jël na ko sànni na ko. arbitre baa ngi wax ak ñoom. arbitre baa ngi wax ñoom. li làmb nangu ak li làmb ma nangu ak li mu bañ. mooy naan leen bu ma siflee ngeen taxaw. Tidiane Faye ak Keweul Keweul moo ñu woon ginnaaw. règlement daal leen wax. mi ngi wax ak ñoom. arbitre baa ngi laaj ay jugeem. consulté na ay juge am waxal ñaari mbër yi arbitre sifflé na journée Assane Ndiaye Baol production dimanche 3 juillet Tidiane Faye ak Kewel il wan ginnaaw Tidiane Faye la jaakaar lool ñu ngi ne teg Kewel lewaatoo na ba mu neex mu dagg lewaatoo bi Tidiane ak Kewel noppi na ca. tudd na ko teel a woon ginnaaw Tidiane jàkkaarloog ñun. ñoo ngay lewaatoo. Gueweul pied gauche. Tidiane Faye lewaatoo. taxaw na jonn di ko xool. Gueweul ngi taxaw di ko xool. ku ne la teg wala boo ku njëkk a song. Tidiane jiital tànk ndeyjoor. round d'observation. Géwël jiital tànku càmmoñ. Géwël Tidiane Faye. ñu ngi lay waatoo. demee nañu wet ñoom ñaar na. Tidiane ak Géwël ay tànkam. Tidiane daan naanu bëre la. ñu ngi lay waatoo. Géwël Tidiane Faye. Tidiane ñu ngi lay waatoo Kewel Tidiane Faye Tidiane ak Kewel Kewel Tidiane Faye ñu ngi lay waatoo Tidiane a ngi taxaw di ko déglu Tidiane dafa bëgg a xeex wala dafa bëgg a dem ñu ngi lay waatoo wala dafa bëgg a xaa xool lu Kewel andi arbi ne na leen bëre leen. Kewel wàcc na. Tidiane ak Kewel. Kewel Tidiane Faye. ñu ngi lay waatoo. Kewel Tidiane Faye. dimanche. 3 juillet fii ci arène nationale. Kewel Tidiane Faye. ñu ànd ak Baol production Assane Ndiaye na ca bopp ba bopp Abdou Fall ñu ngi lay atoo ñoom ñaar diggante Tidiane Faye ak Kewel. boo demee ca cumukaay la da fay fekk ñoom Abou Ndiasse ñoom Taxe. li ko waral mooy Tidiane daa jóge ci ndam bëgg a confirmer Kewel jóge te nee na waru tollanti ndax moo gën doon xale Omer. fekk fi ñoom ngi naan leen goo xam ne. xam na ak xale bi euh, combat bi boo gisee mi ngi gën a jegeñ surtout garde à droite bi mu def xale bi def garde à gauche noo ko jàngate. waaw loolu na solo parce que calcul lay doon parce que Tidiane xeex bu bari bi du avantage am Keweul it bëgg naa xeex mais du bëgg a juum. waaw tooñ na ko léegi. Keweul door na ko benn arrêt. waaw lamb ji foog mu am voilà Tidiane am conférence lu tax ñu jël premier sénégalais nekk na boo xam te ni tey. Eh, Tidiane Faye. Oh. mais bien day jege ñu mën a jàpp xale yi. loolu am na solo. teewal sànni na ñaari yoon léegi. doo fay la woon waaye dëkk. doo dëkk ñu ngi laa too. Kewel Tidiane eh, Faye round bi ci Tidiane. parce que distance bi dafa arrangé euh, Kewel. parce que distance bi dafa approché à telle enseigne que. moom na ko laal donc il faut que Tidiane boolu ci ay déplacement mais ni mu taxawee nii arrangé wu ko donc dañuy déplacé wu sur un côté bu mën ko loolu nga am na solo ku la sut relonge nga fixé benn place abi bi atena avertissement verbal reegu leen de avertissement verbal loolu mooy bëre leen. arbitre sifflé waat na arbitre sifflé waat na. Tidiane demee wet. demee nañu wet ñoom ñaar. moo ñu wan ginnaaw Tidiane Faye la nu jàkkaar lool. Keweul pied gauche Tidiane ak Keweul. Keweul Tidiane Faye. ñu ngi lay waatoo. dooranteegu nu jàppanteegu nu. Téwél mépp na waaye demul sànni na léegi moom Téwél mi mi waat na boog gauche Tidiane Faye Téwél doon na korose dalul Téwél Tidiane Faye tooñ na ko Tidiane fayu Tidiane cokkaas na léegi waaye dalul. Tidiane ak Kewel. Kewel Tidiane Faye. na léegi moom Kewel. Kewel Tidiane Faye. Kewel a ma sa tànk yi. Kewel deme nañu wet. Kewel Tidiane Faye. deme nañu wet ñoom ñaar. Tidiane ak Kewel. Kewel Tidiane Faye. eh na ko crochet droit. Kewel door na léegi. sànni ko crochet droit moom Kewel mais dalul Tidiane remise na. Kewel na Tidiane Faye fayu. Kewel a ko def Tidiane Faye léegi. Tidiane ak Kewel Kewel dóor baax na de. Tidiane yooru na na ko. nee ma say tànk. de tax daw na sàcc ko mu génne ko. eh mais Kewel góos dóor baax na de. Kewel bu baax waay. Kewel ngay dóor. dooraat ko léegi are ko mais waaye Kewel buy dóor ba fàttali say Tidiane daan naanu bëre la Tidiane daan naanu bëre la Tidiane ngi dellu gannaaw. Tidiane ak Keweul waaye demul. waaye Keweul na mu déroulé combat am baax na. Tidiane ak Keweul. sànni waaw Keweul dugal na léegi gauche. Keweul Tidiane Faye. eh Keweul Sorol Saafay Kewel Tidiane Faye jàppante nañu Kewel Tidiane Faye teente Kewel na muy xeexe baaxul Kewel Tidiane Faye ñu ngi Kewel Tidiane teente ñu ngi PNP Tidiane Faye am na ñaari loxo ci ngemb Tidiane am na ñaari loxo ci ngemb PNP nañu lamb calcul la ñu ngi PNP Kewel Tidiane Faye ku ci nekk jàpp nga ndengeñ ak Kewel Eh. ko jëma ëñ tijaan mépp ca xabal mu jéggi kewel tijaan daanaan la looy def lu ne nanga ko waaj ñu ngi PNP looy def lu ne na la leer kewel tijaan fay ñu ngi PNP kewel tijaan fay PNP nañu kewel jàpp na ndengeñ ñu ngi téyante. Tidiane jàpp na ndengeñ lan mooy xew. Tidiane ak Keweul. Zongale xajoon na fi. dama dama. tiijaan Tidiane Faye. bëre nañu 10 minutes. mi-temps Tidiane a ngi koy jéem a wër. waat waat Tidiane Faye a koy wër. Tidiane Faye wër ko. lu ñuy bëree nii. Keweul Tidiane Faye Keweul Tidiane Faye Keweul Tidiane Faye di ngay naanaan mais loolu du làmb Tidiane Tidiane Faye Kewel. Tidiane Faye am na carte avertissement Kewel am na carte avertissement ku ci am benn lamb ji jeex. bëre xeex ah. Kewel Tidiane Faye Kewel cokaas na léegi. Kewel Tidiane Faye. Arbitre bi àtte